waaw daanaka man man de daanaka jàpp gi moom euh, benn acteur laa gis ne moom sama wóllëre la ci bis bi wóllërante nañ ci lool moom sax ak ba léegi dama amoon yéene sax lii ñuy def mu fekk ko muy Maulana Chérif Mouhamad Ali Aydara euh, nga xam ne moom moo jiitee fondation moo jiite euh, ONG Mousdair International moom rek laa xam ci jëmm joo xam ne maanaam bis bi biñ ko dooree ba tey mi ngi ko ànd ak ñun di ci jàpp ci biir ak ci biti ci zahir ak ci bati ci wàllu social waaw waaw loolu moom toujours ñi ngi ci xam nga ñun euh, dañoo am euh, ay daayra ba noppi ci biir daayira yooyu ñu créé benn mouvement boo xam ne mouvement al islah lañ ko tuddee léegi mouvement islah boobu islah ça signifie réforme mouvement de la réforme léegi mouvement boobu nag ñu ngi ko créé depuis 2000 2012 récépissé bi 2012 lañ ko jot di ci góor góorlu nag ñu fexe nag ba mouvement boobu tënk daayira yëpp léegi ñuy amal ay activités yu bari nag chaque jour ñu ngi ci journée set setali yi ñu ngi ci lutte contre drogue yaa ngi dégg ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci euh, social bi maanaam di dimbale nit ñi ndax lii tey bisu tey bii loolu ci la bokk ndax yaakaar naa defar nañ ci ay ndogu daanaka valeuru ay millions yoo xam ne jaami yàlla yi rek lañ koy jox te it nag euh, jublu ci payuk suñu borom dongu euh, ba waxtu wu nekk nga xam ne xale yi daanaka ñu ngi liggéey ci ñoom liggéey boo xamante ne nii ñi ci doon def lu dut noonu ñëpp bàyyi nañ waaye fexe nañ tamit ba jigéen ñi di doxe ñaar di jaamu yàlla waaye di nangoo liggéey lu ci gone ndaw ndaw fexe nañ ba teg la ci yoon jàngal la nga fer iji xam say farata di jaamu yàlla waaye di la soññ it nga dem di liggéey ndax ñun kat loolu ci la ñu yar ndax man nit laa koo xamante ne gannaaw ba ma bokkee fi ma bokk ba noppi it yàlla dafa dogal euh, man jàngalekat la li euh, lycée Patte d'Oie des gii laay jàngale euh, prof arabe laa bu ko defee mu mel ne it nag jàngi woon naa bitim réew it maanaam Égypte laa amee sama bac plus 4 bi ma ñëwee tamit def naa école normale supérieure de Dakar fa génnee ñu affecté ma Sédhiou yàlla dogal xalif euh, général de Mouride Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi wax le ministre Kalidou Diallo mu ne ko sëñ Cheikhouna kat dañoo soxla dañ ko soxla fii ci dëkk bi mu bañ ñoo sori yàlla dogal Kalidou indiwaat ma fii lycée Patte d'Oie 2 ba léegi maa ngi ci yàlla dafa dogal nag ñun liñ ñu yar ndax Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul éducation ñun moom lañuy ñuy doxal yàlla dafa dogal nag léegi maanaam Cheikh Mouhamadul Mourta <coughs> Cheikh Mouhamadul euh, euh, Muntaxa it soñu ñi ci loolu yàlla dogal it nag yàlla dogal it nag ñun dañoo doon ay nit ñoo xamante ne nii maanaam maanaam maanaam li sëriñ Touba jàngale waxtu wu nekk loolu ci la ñuy dund te li Serigne Touba jàngale génnut ñetti yëf yi dafa wax ne moom ci la fonde yoonu murit ñetti yëf yooyu mooy maanaam xam-xam jaamu yàlla ak nangoo liggéey kon nag xam-xam jaamu yàlla ak nangoo liggéey googu moom la sëriñ bi fond yoonu murit waaye it ci la ñu yar euh, suñu waajur tamit muy Cheikh Mouhamadou Mbacke Ñaaxar nga xam ne moom it 1961 euh, euh, la ko Cheikh Mouhamadou Fadil joxoon ndigalul mu ci dëkk ba ba mu fay sanc ku ne xamoon na ni mel waaye tabarkalla da ko toj ba lépp tabarkalla mu mel ne nag kon loolu it moom ci la ñu yar yàlla dogal it man éducation bi ma am bi ma jàng ja ba am xam-xam it bi ma ñëwee dama dama dem léggéey liggéeyi ndax njàng mi moom mënta ñàkk ndax ci la ñuy jaamu yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni kon mu mel ne ibada maarifa da koy jiitu maanaam xam dafay jiitu jaamu waaw buñ paree ci loolu it nag euh, alquran moo wax ne fa isa qudiyati salat fantasiru fil ard buñ paree ci jàkk yi ak jumaa yi nañ jëm liggéey mu mel ni loolu moom ma dugal ci enseignement euh, gannaaw bu ñu paree ci loolu tamit nag maanaam ku ne xam na ne euh, nit ak jinne suñu borom lim leen fi indee mooy jaamu yàlla wa ma xalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni kon nag ibaada boobu it nag comme moo ñu fi indi ci loolu lañ nekk mu mel ne nag kon ñetti yëf yooyu nga xam ne moom lañu boole muy xam-xam di jaamu yàlla suñu kéem tolluwaay kàttan ba noppi di liggéey yi tamit nag maanaam yaakaaruñ kenn suñu ñàkk bopp lañ yaakaar maanaam lu ñu am. dañ koy jël delloowaat ko ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi mu mel ne loolu ñuy def tamit nag loolu ci lañ yar tamit suñu njaboot loolu ñuy def maanaam yoon woowu ñu ñu teg ñun yoon woowu tamit ndakaaru gi ñu féete rawatina géejawaay ci la ñu teg njaboot gi yëpp waaw waaye daal moom tabarkalla